xeex bi il faut mu jël beneen fànn ndax euh, olof dañuy taal bu taw tàkk côté bu nekk nga koy euh, uppee boobu ba léegi ñu ngi def li ñu war a def dem nañ ci médias yi dénoncé def nañ ay rassemblement def nañ lu nekk euh, waa ji taxaw fi mu taxaw rek ne moom daal day jël temps am nu mu ko sentiré la koy defee ah ñu nit ñu seet ñi nga xam ne am nañ ci ñoom yaakaar te nekk luñ fi lu dul askan wi ñu dem waxtaan ak ñoom ba tax ñu indi fi conférence de presse bi pour jëmalaat daal suñu taxawaay. waaw fanweeri weer ak juróom métti na parce que père de famille boo xamante nii weer bu daan jot nga wàcce ceeb wàcce dëwlin wàcce suukar say doom nga yóbbu leen école ñu jàngi say mbokk di la seet si nga seq ñoom teraanga kon boo demee ba yooyu yëpp amatul di nga am lu la métti mais bu fekkonte ni ñi ñu ko teg dañoo bokk ñun naqar bi au moins loolu du métti. ndax ñoom bu dee ñoom seen doom ya ngi jàngi ñu ngi faju ñu ngi lekk ñu ngi naan amuñu benn problème ñun tey am na ci ñoo xamante ni seen doom jànguñu année passée am ñoo xam ne ñu ngi feebar mënuñoo faju ba am na ci suñu ñaari euh, collègue yoo xamante nii gaañu nañ fi ak yu bëri yoo xam ne tey ji mënuñu ko wax am ñoo xam ne génn nañ leen seen i seen i kër ndax euh, mën a mënatuñoo fayu laas ak dossier bi dossier bi dem na inspe dem na euh, présidence ñu jox ñu accusé de réception le ministre Assane Diop wooñu ñu dem seeti ko mu woote inspection wax ak inspecteur yi donc kon ñun li ñu war a def yëpp dem nañ fa dem nañ ba man toog naa ak inspecteur ne ko man dama jàpp ne sax yow danga nga ànd ak gars muy dégg ma ni ko man ni ma déggee ngay doxalee ak ni ngay defee dem naa ba jàpp ne yaa gars yi ñoo ànd non ànduma ak ñoom wax ay waxam ñu daal di dem mais buñ bindee suñu requête boo xamante collectif bi yëpp ñoo signé cent une personne ci cent vingt six nga ni yow euh, euh, loolu c'est pas recevable da ngay jël par titre individuel parce que bu defee titre individuel mooy kenn ku ci nekk ñu woole wax la lu ñu waxul sa morom su ko defee ñu disperser ñu loolu dong lañ ci jublu mais du leneen. parce que ñun li lépp def nañ ko waaw lépp def nañ ko amul benn euh, syndicat boo xamante ni woon ba ci ba ci syndicat synthèse Modou Giro man en personne woo naa ko ne ñun suñu xeex boobu ba léegi suñu la te yaay del yaay.

mais mais mu ni ma ñun daal li ñu war a def def nañ ko xam nga yéen da a tëj yeneen usines yi ñuy waxal tëjuñu man ni ko raison de plus ñun a ne ñu ngi liggéey seen i problème bariwul non ñun fuñ ñu frappe woo dañuy dem parce que ñoom duñ ñëw wuy ñu ba pare woote ñun ñun duñ dem voilà pardon boo xam ne da ngay dem mu ne da ngay dem seeti ko mu ndax amul kenn ku tukki oh. ndax amul ku dee waaw ah. patron boo xam ne da dem seeti ko mu leen ndax ndax amul ku dee ah ndax amul ku tukki euh, ah bu ngeen demee ci yoon du ngeen fayeeku wala bu ngeen gañee bala ngeen a fay du ngeen toog dix ans wala réew mi. tey jii nii foo laal ci Sénégal mu ngi métti waa PCC yi amal nañ leen fukki weer ak ñeent payoor waa CRPM amal nañ leen fukki weeru payoor waa ABS depuis 2016 kenn fayu leen. Euh, tey euh, euh, wa société des salins du Sim Saloum xamal nañ ñu né dàq nañ juroom ñen fuk ak juroom ñaar ci ñom tey ji ni ma ngi fi ci Sigelec liggéeykat yoo xam ne depuis fanweri wer ak juroom kenn fayu len d'accord kenn joxu len dara. ñu japp nak né lolu ñaaw na ñu japp nak né lolu du deug du yoon ñu japp nak né dañoo wara and dolel wa waa Sigelec ba ñu am ndam am ndam mooy famille Seydi fay leen li ñu leen amal ci licenciement yi famille Seydi respecté li nga xamné moy euh, protocole d'accord bi nga xamné signé nañ ko ak ñoom waaye dooleel xex bi tamit moy xamné wa waa dañoo wara joxante loxo ak waa PCCI ak wa ABS ak béykatu toben ak euh, wa CRPM ak béykatu euh, Kignanbour wala en fait mais Kër Moussa ñi nga xam ñom dañoo bëgg fokati fokkati seen xeex ndaxte état bi amna doole doole jo xam dañoo wara tabax dañoo wara tabax euh, doole joo xam ne moom mooy état pour ne par la force famille Seydi dina fay liggéeykatu si ñu ngi ñaawlu itam euh, situation bi ndaxte situation bi lu muy wane itam moo di ne euh, liggéeykat yi dañoo liggéeykat yi amuñu syndicat yu nekk seen wet amuñu centrale syndicale yu nekk seen et donc pacte de stabilité bi nga xamné Central centrale syndicale signé nañ ko du Sénégal pacte de compromission warul pacte de collaboration de classe warul pacte de corruption euh, d'accord de l'aristocratie syndicale sénégalaise dafa war pacte de défense intransigeante des intérêts des travailleurs donc nous ngi syndicalistes C'est pas parce que da conseil économique social et environnemental ou au conseil euh, des territoires ou le conseil d'administration, ne 10 octobre li préfet de Dakar nous wax président Macky autorisé ou pas dinañ marche pour waa Sigelec autorisé ou pas dinañ marche pour béykatu Kër Moussa autorisé ou pas dinañ marche pour bachelier yi nga depuis d'ao kenn orienté autorisé ou pas dinañ marche pour toutes les victimes des politiques antisociales anti travailleurs et anti paysannes et antinationales du président Macky Sall